jërë ngeen jëf dama naan coow rek dem sa lamb ja diggante Modou ak Siteu le roi des arènes di Modou wante combat bi kañ lay doon ñu ne ma le lay doon ah ma ne ko la ñu ba Modou Lo naan kon fa say morom jaar naa lay jaaral Siteu naan ko lii dama ko soxla te lu ma war a jër la Modou Lo ne ko le 24 octobre daal si la ñëpp xam ne lépp dëgg la ki xam ne lépp dëgg la ba xam ne lépp dëgg la kii la di wax cuun bitik ak ki xam ne mooy Wally 2 bu Bambey ginnaaw boo Wally 2 bu Bambey demee kër cun bitik màggalu Tuuba xol ba daal di am problème vent bi moo am problème maanaam mu naan cun bitik moo ko ko teg askanu Sénégal may laaj dong rek ma xam ne Sénégal gi def lu baax yomb na wala yombutut wante li am ba des mooy bul fàtte ne école moo ngi tijji parents yi képp koo dégg sa micro lam lay wax mooy jafe-jafe fermeture yi seer na loolu askanu Sénégal li ko mën na ko lii nag Basiru Jomaay Fay war naa jóg si lii école bu tijjee rek parents si ay jafe-jafe lay nekk ak ay tolof tolof